ginnaaw bañ ko inauguré ci atum 1963 tombeel ndoxteelu indépendance yi fii ci Sénégal stade abattoir mujjee doon stade Assane Diouf a fi mu toll nii ak xar kanam bi muy wane doy na waar donte ci ay jamono bërëb bile donna na lu am solo fii ci Ndakaaru nga xam ni. li ëpp ci ay yëngu-yëngu jëm ci wàllum tàggat yaram file la doon amee li ko dalee waa Rëbës Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Fann Fass ba Colobane ñëpp fii lañ daan daje. ci ginnaaw miir bu kawe bu jaune bi la ñuy seen stade Assane Diouf moo fa nekk bokkoon ci stade yu ëppoon tur ak taarix ci capitale sénégalaise bi ngir nag am yile image wala sax ngir fexe ba yër li xew ci biir stade bi pexe yu bari ak pas-pas bu takku la laaj ngir mën a xam lan la yile di nëbb mu jege lool mosquée omarienne bi nga xam ne daanaka moo ko tiim gis nag ci biir stade bi mooy ñax mu bari ay gravats wala bok sax gru bi nga xamne ay atangi ni banyu mu taxaw ginaaw bañu dakalé liggéey bañ fa doon am fofé ci chantier ba fim toll ni nak mala yi danaka ñu ëpp ci lu ñuy gis ci biir stade bi wala bok la ca des ndaxte juumu leen a ngi eh, fi ci stade Assane Diouf nga xamne danaka 2003 ba légui ab litige manam xëccoo bu jëm ci digënté état bi ak population yi moo ci laxasu ah, ci diggante promesse électorale yi kàddu yi nga xam ne am na ñenn ñu ko jëloon ci autorités yi te ba léegi daaduñu ko dëggal ah, ñi jàpp ni suuf soosee nga xam ne fa la stade Assane Diouf sancu ngir daal ko jox ay privé rawatina ñi ngànk projet Kawsara bi ñoom waa collectif René Sanchez nga xam ne ñooy xeex ngir ñu delloo si stade bi li ñu jàpp rek mooy ne seen patrimoine boobule dara mënul tax ñu bàyyi ko. en fait dossier bi ci boppam 2003 euh, moo ci nekk mais ñun en en en 2004 octobre 2004 ci la ci la ñu jóg commencé xeex loolu. jour bi ñu koy tëj bi ñu koy tëj fekk na ma fa parce que dafa fekk jour boobu la matin kusum di entraîner ñuy entraîner ay policiers ñëw fa bi ñu fa ñëwee donc. interdit ñu pour ñu kii ci lañ fa jóge donc amatuñu terrain. Euh, stade bi mi ngi nekk biir Rebeuss euh, am na ASC bu mag bu tudd ASC Xandaalu ñëpp ràññeeku ci nawetaan ci stade bi lañ doon entraîner boo yéegee niveau bi gën a kawe di championnat US gore ci estade bi lañ doon entraîner du dëgg ASC Kusum bu Medina di ASC bu ràññeeku tamit. Nous tam ci stade bi lañ doon euh, euh stade Assane Diouf tam am aspect euh, dafa am plusieurs aspects dafa am aspect historique am aspect sociologique am aspect sportif am aspect politique. ça fait 16 ans 16 ans de lutte Il hein. ba légui ñi ngi si di bon y a eu deux régimes qui se sont succédés à savoir le régime d'Ablaïwad et celui de Macky Sall aujourd'hui ci atum 2004. rawatina ci mois d' octobre le collectif René Sanchez daal di juddu ñi ko daal di taxawal nag du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñooy xeex ngir ñu delloo si bile patrimoine nga xam ne li mu ëmb ci wàllum taarix rëy na ñoom nag di ay doomu gox boobule. ci seeni kàddu ak seeni témoignage lépp maanaam coow li. mu ngi tàmbali ci jamono jooje nga xam ne eh, kii di Pape Diop mu jiite woon mairie Ndakaaru mu amoon nag ay xëccoo ak ñenn ci ñi nga xam ne jiite woon na leen stade Assane Diouf sax bokk na ci coow li li ko indi ci ay témoignage wu waa collectif bi ni ab weccoo bu waroon am mairie Dakar waroon na joxe stade Assane Diouf ngir jot ci ay suuf rawatina réserve foncière bi nga xam ne moo nekkoon foofee ci ginnaaw stade Iba Mar Diop ginnaaw ba nga xam ne boobule weccoo mujjewul antu ci la coow li daal di problème mu Assane Diouf initialement c'était le problème entre un maire et ses administrés parce que stade Assane Diouf Pape Diop maire de Dakar parce que stade bi stade Dakar la. Dakar c'est la ville de Dakar bi nga polarisé les 19 communes donc initialement le problème on l'avait avec la mairie de Dakar Le a problème bi jeunesse bi réellement la différence entre 2003 et 2004 nous en 2004 période j'étais conseiller municipal à la mairie du Plateau ci biir conseil bi lañ ñu informations information comme quoi nous avons lu tramé ci à Assane Diouf stade bi ñun dañu juddu fekk ko fi mu nekk la nga xamné vraiment lim fi joggé sax rafetlu wuñ ko parce que mom moo ñu doon dolel ci lépp muy kusum di xandalu donc bi fi joggé amna na lu mu joué ci ñaari équipe bi parce que bo xolé dafa wañi doole équipe bi le stade aujourd'hui c'est c'est un patrimoine de Dakar à Assane Diouf parce que bokay xol tay on a plus de stade à Dakar il y avait un stade au champ de course Je suis def 4C actuellement bon SAT Assane Diouf moo comme SAT municipal bon ñu bëgg ko jël ça va compliquer un peu les choses. Le problème échange parce que SAT ville de Dakar L'État a initié une procédure pour def échange entre SAT Assane Diouf la réserve foncière de Ginao et Sat ibomar échange c'est ce li vraiment mun jàpp nañ ne spoliation financière foncière là. parce que état bi bëggoon na teg loxo ci ci réserve foncière bi pour jox ko projet bu ñuy wax Kawsara. ca ndox tel nak stade abattoir le bile bërëb tuddoon ak kii di Médoune Paye nga xamné mu ngi bok ci collectif bi féké lu bëri mu ngi xamalé ana nan le bile bërëb dem ba tudd stade Assane Diouf waaye dëgg-dëgg kan moo nekkoon Assane Diouf nga xam ne euh, doomu Sénégal ak Guinée la woon nekkoon ab patriote bu mag waaye itam sportif bu ñu ràññee. bu ñu nee stade Assane Diouf xam nga stade Assane Diouf tudduwul stade Assane Diouf stade des abattoirs la tuddoon bu ñu nee stade des abattoirs boo ko waxee nit daan ne mais lan moo indi stade des abattoirs donc ça veut dire que fi ñu implanté stade bi bu fekkoon ne amul amul abattoir ci biir am na abattoir bu nekk ci wetam abattoir boobu lan moko indi lolou nit ñi dinañ ko gëssu ba xam lan lan moo tax donc am aspect c'est important ensuite ñu né stade bi Assane Diouf lu tudd boo laajee ñu dañ la mais kan moy Assane Diouf ba ñu koy tuddee stade ñu né Assane Diouf c'est un sénégalais bo xamné ne yaayam guinéen guinéen la Papa papaam nek sénégalais mu jindi a ah, judd à Conakry en 1912 dem à Paris nek fa di boxe ba nek fa champion de France bi Sénégal di eh, organiser les Jeux de l'amitié le président Senghor daal ne ko ne ñibbi pour nekk entraîneur u entraîneur boxeur sénégalais yi mu bàyyi la ma doon def foofu en France ñëw ci appel patriotique bi li ko Sénégal woo mu dellu si ñëw taxaw servir dëkkam entraîner ay nit bu ñu am ci ay médailles yàlla def ci au cours d'une d'une d'une partie de pêche mu doon mu doon mu doon mu doon nappe.

mu nekk pàcc bu am solo ci histoire Sénégal rawatina ndakaaru fi mu toll nii nag booy xool ci wàllum tàggat yaram li fi stade bi nekkatul ASC xandaalu ak ASC kusum nga xam ne ñoo nekk ci gox boobu boobule daanaka ñoom la mbir mi gën a indil ay jafe-jafe. ñun ñi nga xam ne nag ñoo dëkk environnement yi ñun ñi nga xam ne ñooy sportif yi ñun ñi nga xam ne ñooy base sociologique stade bi environnement immédiat bi. ak waa Ndakaaru en général dañu jàpp ne stade bi utilité publique la place publique la te bu ñuy dagg réew di dagg kër wala di dagg koñ dañ fay dagg loo xam ne fa nit ñi di féexloo wala fa la ñuy tàggate seen yaram mënuñuy jàpp nag ne ñun fii ñu dëkk stade bi rek des si di lieu boo xam ne fa la ñu mën a tàggate suñ yaram état bi bu ko jël jox ko ay étranger yoo xam ne dañ fi def ay tour ni nga war a préserver marché Sandaga war ko préserver euh, école maliksi. Sy war ko préserver repos Mandel war ko préserver service d'hygiène war ko préserver maternité de le la Dantec noonu nga war a préserver stade Assane Diouf d'abord bâtiment que nous avons ko construire turbine yi ni mu demee euh, euh, pour nous bi nga piste d'athlétisme amoon aussi centre social et cetera si vous ko la wone nga terrain de basket et cetera ñu champion du monde ay ay internationaux sénégalais de basket de football ñoo xamné ils ont rendu service à ce pays. stade bi dafa symbole symbole ba nga euh, même bu nawetaan jéxé nit parce que ñëpp bo deful dara am na xamne sax sen grand place ci tribune bi la won fa lañu dem tok féexlu donc mu nekkon lu reuy ci ñun ñi dëkk medina ak stade bi stade Dakar la du stade Rëbës xam nga ba taxna stade Dakar Dakar dañ si ando nak ñeneen di ko mo xam wa medina wa fas wa geltape ainsi de suite ainsi de suite bu sikap manam département de Dakar bi ginnaaw ba ñëpp nangoo ne stade bi jamono yu mu fi nekk amaloon na njëriñ lool waa gox bi rawatina ñi nga xam ne ñoo doon yëngu ci wàllum football éducation physique match nawetaan yi concert yeeg yi ni mel ah, mu mel ni nag boobule bërëb ci yooyu la jamono jeunesse su ndakaaru bi yëpp foofee lañu daan daje ah, ci taarix. mu mel ni stade bi bëri na ay ndaanaan yu fa jaar ci wàllum football du jong Matar Niang Louis Camara ba ci Nawel Sylla di ay turu footballeur yu fa yàgg def ay jaloore bokk ci ñi bind euh, taarixu stade boobu boobule. mémoire boobu yëpp boo ko tojee da nga koy da nga koy da koy da nga koy daaneel la ngay daaneel lan la da ngay daaneel footballeur yi nga xam ne ñoo fi nekkoon boo ñëw footballeur ñu ne la Espoir Dakar fa la daan entraîné.

bu doon jouer xandaalu marqué woon na ma. dafa bari tellement parce que ci ñaari équipe yooyu kusum xandaalu ku ci nekk danga am nombre ba nga xam ne euh, jouer na au niveau def na lu nekk ci football ñoom ñëpp dañu jaar foofu donc mu nekk la nga xam ne vraiment man bu may bu may wax dama naan li mu doon formé ci jour dafa bari dafa bari ay ndaaraan yu bari ku mel ni comme exemple Lamine Sagna. Euh, joué na deux coupes d'Afrique joué Bordeaux donc ku mel ni moom ñun ñëpp fa la ñu jaar Malick Daaf entraîneur u Jaraaf bari na daal. bu ñu ñëwaatee ci mbirum tàggat yaram ñàkkum bërëb bi nga xam ne mën nañ fa entraîner wala di fa footballer am na ay njeexital yu mu def ci ASC Kusum Xandaalu ak yeneen i équipe yenn ci dirigeants sportifs yi ñoom nag jàpp nañ ne ba ñu foqatee stade bi seeni loxo. dañoo daal di indil ay jafe-jafe yu am solo équipe wala bokk ASC yi nga xam ne ñoo fa doon nekk te di wane seen bopp bu baax rawatina ci wàllum football. ñun on est resté treize ans sans prendre coupe treize ans parce que lan la mais défaut d'infrastructure moo ñu ko yóbbee suñu amoon infrastructure parce que tous les deux ans Xandaalu était en finale tous les deux ans même si dara sax aussi il en faisait partie mais kusum depuis 2009 il n'est pas allé en finale En 2006 lañu a dem finale ba 2018 2019 ça fait 13 ans 12 ans 13 ans est-ce qu'on comprend, que kusum depuis 2009 2007 mais vous imaginez ça fait heure bi am nañ tane mais kenn waxatu ko boo xoolee bu jël coupe 2007 la dafa yagg te loolu tam daf ci jouer parce que demoon nañ ba chaque année chaque deux ans dañuy ñëw final participer ci fête bi donc 2007 lañ ko gëjoon kii ba année bi passé lañ ñu gagner demi finale contre Khandalu. donc euh, loolu tam euh, jouer na ci lu bari. Walum spoliation foncière dañ koy dégg lu bari ci litige bi nga xamné mo moo ëmb stade Assane Diouf manam foqati souf ngir jël ko tek ko ci ay loxo privé rawatina.

au départ dañ leen ne pakistanais la jékki-jékki ñu né la ay chinois la am sax suñu ben xarit yalla nako yalla yàlla bu daan wax ne dootul ay chinois ay chinois lañu chinois yu moy lan moy dafa am ay sénégalais yo xamné dañuy làqatu ci gannaaw chinois yi en réalité nek ci projet bi mais baña a feeñ. mënuñu ñëw jël déposséder les populations d'une structure publique jël ko jox ko à des privés ba pare privé yooyu bu doon ay privé sénégalais ñu mën a wax mais ay privé étranger ñun loolu la ñu d'accordul woon te xeex boobu moo nekk ba tey. lan moo des ci engagement yi nga xam président Abdoulaye Wade jëloon na ko ca 2008 moom mi nga xam ne ba mbir mi commencé ëppi loxo moo njëkk jël décision ne dañuy delloo stade bi waaye itam ci fàttali ci atum 2012 jamono yi nga xam ne président Macky Sall wala bokk candidat Macky Sall moo ngi doon def campagne mu mel nii stade Assane Diouf daf ko campagne woon daal di diggoon jeunesse Dakar bi ne bés buñ ko falee dina leen delloo boobule bërëb boobule engagement sax président Macky Sall ginnaaw bañ ko falee daal dina ko feddali le 14 mars 2013 daal di nag joxe ndigal ngir ñu dakkal yooyu les travaux jëm ci projet Kawsara njiitu réew mi dem sax ci atum 2016 rawatina 22 juillet ci benn conseil des ministres décentralisé bu amoon foofee ca Pikine dal di gën a saxal boobule engagement ne faw rek mu delloo stade bi ñi nga xam ne ñooy population yi. 2004 Ablaye Wade jël na stade bi après joxaat nañu stade bi ainsi de suite ainsi de suite bon Macky Sall ñëw. En 2011-2012, il présentait présenté pour être candidat à la présidence de la République. Il nous avait promis le stade. Lors d'une campagne électorale, bon, il nous a dit qu'il va nous restituer le stade une fois qu'il sera élu président de la République. Bon, moi qui vous parle aujourd'hui, bon, c'est à cause de ça que j'ai voté pour lui bu ñuy toog di waxtaan mais attention président de la république la ñu amal affaire président kenn du ko saaga ñun président duñ ko saaga président dañuy toog waxtaan ak moom mu indi ay argument ñu indi argument si loolu la ñuy waxtaan ak Ablaye Wade ba mu delloo ñu stade bi ñu waxtaan ak Macky Sall ba mu delloo ñu stade en conseil des ministres décision décentralisée à Pékin, ci conseil des ministres décentralisé bi Pékin, Pikine mu delloowaat ko jeunesse bi ñu voté budget à l'Assemblée nationale une vingtaine de millions donc.

mu ñew ci campagne électorale am defal ñu ay proposition ne da bu jëlé nguur gi day wat stade bi jeunesse bi ñun ñu jappalé ko ci lolu ba mu jot nguur gi donc ñun waxon nañu ak candidat Macky Sall bi lolu wesso Macky Sall nek président de tous les sénégalais ñun ñu wat suñu taxaway ci kanamu président Macky Sall taxaway bobu nak mo am tay parce que dañu japp né ñun ay sénégalais nañu. ay hommes public lañu amal affaire ay politiciens ñu respecter ne nit tam bu waxé dara cadre tay dafa wara respecter ci bi mi amna wala bok négociation yu yi nga xamné collectif bi collectif René Sanchez. ak euh, ministre bi nga xam ne fi mu toll nii euh, moom la ñuy waxal di ministre Abdou Karim Fofana mi ñu dénk wàllum logement urbanisme ak hygiène publique am na lu ci soppeeku ndaxte euh, ci seeni kàddu ñaari ndaje yi nga xam ne jot nañ ko daje ak ministre Abdou Karim Fofana lañ ci jëlee neexu leen ci seen gis-gis mu mel ni euh, fi mu toll ni nag li ñor waa ministère boobu nga xam ne Abdou Karim Fofana euh, moo ko ngànk mooy fexe nan la ñuy sauver projet Kawsara bi daal di jël lépp loo xam ne diggoon nañ leen ko euh, sànni ko fële. je faisais partie de la délégation bi nga xam ni il nous avait accordé une audience un truc à à Diamniadio il y a eu deux audiences Ben bi c'est chez lui au point E moi j'y étais pas deuxième fois, j'y étais, c'était à, à Bon, ils nous avaient fait une proposition parce que le collectif, c'est une maquette. Bon, nous avons maquette, mais quand on a vu regarder la maquette, c'est quelque chose qui ne nous arrangeait pas. Nous demandé une audience. Le ministre m'a demandé de nous rencontrer. Nous raffairons. Nous avons même posé conditions. Contexte d'année, contexte Covid, sen délégation ni lay toll ñu ne ko d'accord wa ñu ne ko d'accord and ci ak mom dem toog waxtaan ak mom biñu ñu waxtaan ak mom dañ ko ni ñun ay ndaw lañu dañuy yoni lan la la ñi ngi yónni bu ñu demee danañ waxtaan ak ñom mu def ñu ay proposition daf ñu légui trouver une solution solution bi moy chinois yi 8 euh, tours lañu waron defar légui trouver na ben ay terrain je crois Kaala Dior tuddee ñu fa ben ay terrain bo xam ne fa mëna yobu chinois yi.

du ñu nangu ñu jël benn puxus à côté jox ñu ko nañ dem leen def fa sport. équipe nawetaan ku ci nekk ci zone yi ku ci nekk da nga amoon terrain boo occupé woon donc ñun bu ñu demee ba amatuñu terrain ñu ne xandaalu dañuy obligé dem di fay pour di mën a entraîner te équipe nawetaan mënul loolu. mu mel ni waxtaan bi ñu sumb seen diggante ak ministre boobu boobule. fi mu toll nii point mort la tollu ñoom sax ñuy jàpp ni ñenn ci waa nguur gi ñu ngi lal ay pexe ngir daal di tasaare seen collectif bi ngir rek fexe ba teg loxo ci state bi. xëy na léeg-léeg nga nekk ci benn ku euh, kuréel lu mel ni gouvernement bu nga wane ni yaay def lii wala yaay def lële wala mun nga def ni wala mun nga def lële léeg am na ñoo xam ne dañuy léeg jël ay responsabilité te dañ koy def est-ce que comprendre nga li ma la bëgg pour essayer naan seet ndax dañuy décanté wala décanté wuñu donc yooyu yëpp mi ngi fi mais bëggu ñu ci sori ñun li li am importance rek pour ñun mooy kàddu président de la république. kon suñu toogee tey Abdou Karim Fofana bëgg a ñëw di ñu proposer benn terrain mais dañ ko ne lii du si dal mais état bi laay joxoñ baaraam ndax état bi moo dugg suñu biir jéem a manipuler am ñu mu jël proposer leen leneen di leen miroiter ay emploi ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi du dëgg ñoom la ñu joxoñ baaraam ba boo xoolee loolu sax.

Amadou Ba moko jité won ñu waroon nak génné lu tollu ci 17 milliards dal di ko jëmele ci li nga xamné moy mooy stade bi wayé boobu ba dara yëngoo gu dafa génn ci kayit dans le programme triennal euh, d'investissement mu génn ci ñu budgété ko disé ko à 17 milliards planifié ko entre 2008 2018 euh, et 2020 document à ngi parce que suñu nous ba budgétiser Ben khalis euh, donc ça veut dire que c'est inscrit dans le budget. fa lañ ko dugal ñoom ñoo ils l'ont inscrit dans le programme triennal d'investissement public je sais pas donc. khalis bobu c'est pour la jeunesse ils n'ont qu'à reconstruire le stade. ginaaw bañu daané le stade bi ci atum 2008 collectif bi nak ñom fi toll ni proposer ab maquette. maanaam ñoom jàpp nañ ni war nañu sax mën a jox ay xel ak i xalaat nguur gi ngir ñu mën a xam nan lañuy tabaxaati stade bi waaye itam fexe lal ay pexe ngir ñu mën a développer lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram foofee ca gox ba. 2008 lañ ko toj boo xoolee travaux yi sax boo xoolee lu ci bëri defaguñ fi benn travaux à ay gas lañ fi def et ñun dañuy jàpp ne loolu c'était pour amuser amuser la galerie mais ñoom amul dara luñ fi def. on est allé beaucoup plus loin. Plus loin, moi, là. On s'est dit que dans ce pays-là, les gens contestent, mais ils ne proposent pas. On a proposé, on a dit au président de la République, non seulement vous avez, on a démoli, on veut que vous nous réhabilitez, mais on vous propose un, schéma de réhabilitation. Voilà une, une, maquette bu stade Vous construire turbines yi lii lay piste d'athlétisme sport mais on ne s'arrête pas là il faut créer des métiers du sport le sport est devenu une industrie maintenant quels sont les profits que l'État peut tirer, que les populations peuvent tirer au-delà de l'aspect social il y a métier du sport comment une formation manager comment formation entraîneur de haut niveau formation à euh, sponsor à sponsor à agent sponsor ne ñooy wuti sponsor pour le sport national lu ci jëm ci fait pour entraîner euh, compétir wala boog pratiquer li nga xamné moy sport te mu nek ab droit pour jeunesse bi loolu fim toll ni amatuñ ko mu nek nak situation bu xawa euh, population yi te japp nañ ni lu nek mën na ci juddoo. nawetaan mënoo football si ay terrain yu ndaw donc quand tu as besoin de de quand tu as des matchs pour te préparer il va falloir louer un terrain aller à la piscine olympique ou bien louer le terrain de la gendarmerie de Wakam ou bien Ibn Mardioub. C'est ce qui nous coûte excessivement cher. on est une équipe de Naritan. Nous terrain 15 heures entraînement heures pour que équipe bi entraîner donc tamit euh, metti résultats avant corona mais Dakar. zone bi dañu boycotté faute d'infrastructure mais léegi nan nga mun a ñëwee ci zone boobu nga xam ne am nañ stade bu toll nii nga war ko defaraat nit yi di fa fubal nawetaan dafa am lu muy joué. bu weesoo li nga xam ne mooy wàllum koom beeg li ko wër ah, fi mu toll nii mu mel ni avenir population waa Rëbës moo nekk ci xottu gerte loolee di ay kàddu président ASC xandaalu ndaxte jàpp na ne am na luy raam te ci ñag bi la jëm. le peu qu'on a, il faut qu'on nous le laisse. Et puis si on continue, moi je dis que mieux, il y a derrière, il y a autre chose qui se cache derrière. Parce que non, parce que imaginez, si on arrive à construire des immeubles pareils dans ce quartier comme Rebus, mais sachez que d'ici quelques temps, il y aura de la spéculation foncière. Parce que tous les soirs vont sauter. Parce que vous verrez des gens qui ont de l'argent qui viendront proposer aux propriétaires de ces maisons-là

ñoom nag ñuy wéy di ñaawlu li nga xam ne mooy doxalin bi nguur bi am ndaxte ab parparloo la ñu gis ci mbir mi. fi mu toll nii nag ki nga xam ne mooy yor négociation yi te féete ci nguur gi mooy ministre bi nga xam ne mooy Abdou Karim Fofana mu mel ni nag ci gis-gisu collectif bi moom moomee li mu nar dëgg-dëgg waxagu ko. li wér te wóor mooy ni ñoom fi ñu ngoy ba mu dëgër fas yéene wuñu ko bàyyi ngir dellu ginnaaw. xam nga ñëw tey daan stade stade euh, Assane Diouf da koy da nga koy da nga koy échanger ak ak euh, terrain bi nekk euh, Lamine Gueye terrain d'entraînement bu nekk Lamine Gueye ci nekk ci biir lycée propriétaire lycée nga yow bëgg yow jël stade Assane Diouf échanger ko ak loolu xam nga loolu yéenewul maanaam cours de récréation bu nekk école Rebeuss nga da nga koy échanger ak stade vingt quatre mille mètres carrés kan moo ko mën a nangu tey jii boo duggee ci Médina bi samedi wala dimanche dangay gis booy dañuy bare koñ yi fan la ñuy footballé ci koñ yi mënul nekk mënul nekk parce que manque amuñu terrain moo tax. stade asson Diouf nag fi mu toll nii mbir yaa ngi ne tekk tekkaaral dara yëngu fa ah, booy xool sax am na beneen pàcc boo xam ne duñ leen di faral di dégg ci mbir moomule muy waa fami omarienne ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xam ne ànduñu ci boobule projet Kawsara. mu mel ni nag ab symbole ndaxte booy xool euh, juma omarienne ba euh, moo tiim li nga xam ne mooy stade Assane Diouf lu bëri mën nañ ko ca jàngee. la famille omarienne dafa am loo xam ne dama koy préciser rek euh, ñoom ci seen boppam ils ont am nañu kenn ci ñoom ku bokk ki est est membre du collectif qui est toujours à nos réunions koo xam ne day liñ fi wax mu dem rapporté ko ci. koo xam ni mi nga xam ni moom aussi lu fa am te ñu soxla ñu bugg a waxtaan ak ñun moom dinañ ñëw wax ñu nañu kat kilifa bi nee na bugg na ñëw waxtaan ak yéen. mooy ànd bi ñuy ànd ak ñoom ci ànd ngor am na loo xam ne dañ fi leeral ñoom dañu leeral ñu ne Thierno Seydou Nourou bi ñuy denc ci xabru bi nekk fii ci boru stade bi moo ñëw fekk fi stade bi stade bi ko fi fekk ñoom dañuy leerlu ne ñoom ñoo fi ñëw fekk stade bi. donc ñom buñu buñu amone ñu nous li nous bëgg mooy bëgguñu ay tour di leen nous nax ñe fa que nous ñu toll Thierno nous nga Nous fofu am ñu toll. xam nga Sénégal dafa am lo xam nit ñeme du ko du ko du ko du ko du ko wax mais tey nous euh, ñooñu nous yooyu ni ñu toll rek waroon na tax ne euh, euh, bo Chine tey jii am na ay place yo bo fay fay fay tabax. boo ko yëkkatee boo sàgganee balaa ngoon da nga kaso kaso kaso ngay fanaan. waaye ci mbir mi lépp ñuy samp laaj ba xam ana lan mooy intérêt yi population bi ci boobu boobule projet Kawsara projet boobu bu antuwee est-ce que population bi dinañ ci gis seen bopp dëgg-dëgg ñan ñoo nar a jëriñu ci boobule projet yooyee laaj samp ba léegi. te bokk ci li gën a ëlëm membre collectif bi rawatina askan wi. li ñuy xaar ci moom mooy mu delloo stade bi waaw su delloo stade bi daal il a tout à gagner ci loolu. li tax ma bëggoon stade bi boo doon ñëw entraînement rek motivation bi ci am parce que tey jii da ngay xool supporteru xandaalu dañuy toog côté bële supporteru kusum toog côté bi su ma duggoon ci stade bi rek man loolu rek daf may motiver.

notre population est constituée de presque 70% de jeunes Si su nous amul ou finalement fa président de la république Moi, joxe en tant que candidat Je ko en tant que président de tous les sénégalais ci cadre bi cadre institutionnel conseil des ministres nous devons lu nous solo ñu bëgg Nous boobu mu respecté ko ñu bëgg cadre. mu réaliser

fi mu toll nii nag stade Assane Diouf ma nga xam ne ca ay jamono bëri na ay match de football ya fa doon am bëre wala boog ay concert ak yeneen i yëngu-yëngu moo nga ne tekk di xaar mbir mi sotti